الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنقل الشيخ محمد المنتخى mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf nuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi nga xam ni am na ko ci lislaam am ko ci liggéey sëriñ Touba suñu borom mooy ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee kon ci ndigalul sëriñ Isaaxa Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi. di kilifa jataay bi te mboolem li ëppoon solo ci kàddu yi wax na ko tënk na li jëm ci nguur gi tënk na li jëm ci bokk yi tënk na li jëm ci taalib yi kon li ci des rekk mooy jotle tuuti ci ay kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mboolem taalibe yi ak yoon yi sëriñ bi wax na ni mu ngi sant ñëpp di ko gërëm di leen gërëm ni ko sëriñ Isaaxa Mbàkke waxee léegi ci cantam goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu ci barab bu tedd bii di Poroxaan nga xam ne ñëpp xam nañ li ko waral ñépp xam nañ it li fi indi woon ko tedd kii ba suñ borom def mu wujje fii sëriñ Touba xamoon wàccuwaayam moom soxna si dinaa ci dellusiwaat tuuti dellusiwaat it ci ki nga xam ne bu nit ñi jariñoo ci barab bi jëmm ma tax muy Cheikh Mouhamadul Bachir door a joti nag kàddu yi nga xam ne moo jëm ci bokki taalibe yi kon fi may ubbee samay wax mooy santaat yàlla bu baax sant Sëriñ Tuubaa ci tawféex juré ji nga xam ne defal na ko njabootam gi ndax sëriñ bi kat wax ne na ngeen xam ne ëpp leen yéesu leen gimiñ jàpp leen boo ngeen ëppoon da dama da bu ngeen ëppoon da ngeen di ñëw ba ba dem ma door ñëw bu ngeen yéesoon tam dangeen damay ñëw da ngeen di ñëw ba dem ma dooru ñëw gi muy jàppulee nit mooy dajewu leen ak man ba noppi wedd ma yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ne sëriñ Touba gis bi dafa neex gis bi dafa neex mooy lépp da ko fàggu na mu ko waxee woon Cheikh Mouhamadou Moustapha nettali naa ko ay yoon jëru dellusiwaat ci yoon wi lépp lu ngeen fi gis rek Serigne Touba waajal na ko waxtu ba war a agsi rek bu agsee danga xam ne lii nii la ko sëriñ bi bëggee woon mu bokk ci pàggu téefam yu rëy yooyu itam wax ju gudd lay doon waaye dama ci génn benn faqara rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko waxoon waxoon ne Serigne Touba bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu dafa fasale ci biir liggéey ba. li ñuy tuddee xutbaani yéegi bu duggee ci ak njabootam dootu génnati moom ko ci biir loolu itam nag mu fàgguwaale ci képp ku ko fi nekkal ku ne ad defa wal jalbu suñu borom doo koy def ci yow loolu nag ñëpp dund nañ ko ci ku fi ma sa nekkal Serigne Touba rek fes nga dell palaas bi mate nga ko sëkk loolu kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu suñ borom taw fee xalee njiit yu mat sëkk yoo xam ne ku leen gis te xam ne ñii seen itte jëpp mooy delloo nit ñi ci yàlla seen itte jëpp mooy ràmm nit ñi seen itte jëpp mooy xet li nit ñi ba suñ borom def nag a cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw ndax fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin jotaay bi sax gàtt na waaye fàttali dafa baax ndax nit cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dafa waxoon ne wattandiku leen miineel ndax loo miin xeeb ko taloo xeeb doo ci jariñoo kon Cheikh Mahmoud taxa nekk gi mu nekk suñ biir ni ko suñu borom melal ci ay jikko ak ci tawféex bi yàlla dajale ci moom waris na ko gën xam bu baax te jariñoo ko ndax moom kat dafa jug rek dëgmal jaamu yàlla dëgmal liggéey Sëriñ Tuubaa kilifaam yëpp tàmbale ko ci ki ko gën a jege muy Cheikh Mahamadou Moustapha ibnu Cheikh Mahamadou Bachir mu nekk moom denc xalaatam denc bëgg-bëggam denc léppam topp ci ginnaawam di ko liggéeyal ba loo xam ne waxuma la ñun ñii waaye suñ diggee taalib yi sax ab taalib mënu ci àgg ba làq ngërëmam bu loolu jàllee itam ñim dajal ñim jamonoonteel ci njabootu Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni ñëpp gërëm nañ ko Cheikh Abdoul Ahad masta waxoo na ko masta ko wax ne ko maa ngi ñaan yàlla ñu yàlla rus ci yow kon jataay bi gisoon na ko Cheikh Abdoul Khadir Mbacké bis Serigne Saliou ñëw na siyaare ko ba mu agsee Serigne Abdoul Khadir dafa wax ne nañ daal di wooyu Cheikh du Mountakha mu ñëw fonk ko lool ba jox ko cërub doomu Sëriñ Tuubaa digg mag Seex Saaliwu Mbàkke dane fàng ndax ku ne xam na ne seen diggante jiit na Seex Saaliwu Mbàkke di doon Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saaliwu lépp lu masaan yéene bëgg koo def te amut jotug man koo def Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko ca doyoon ci lépp nag ci genn fan mu ci biir yoon wi di ci bitt yoon wi doy loo mel na ku doon waajal jataayam bii tey yàlla suñu borom defal ko taw tawféex itam bi nga xamee ne ak cheikh Mouhamadou Mourtada dem na ba bàyyi koo fi cheikh Mouhamadou Mourtada doy na sëkk ci moom dam doomu Serigne Touba tuddee ko doom muy cheikh Mouhamadou Mourtada ko ñoom ñëpp ko sédd diggam ak Serigne Souhaïbou ñu ñi ne woon ci daara ja xam nañ fekk nañ ba tey cër bi ko Serigne Souhaïbou joxoon kon moom. diggam soxna mooy kenn fàttewu ko fàtte xaju fi laylatul xadri moom la ko sëriñ bi taxawloo ngir pëste fa te booba ñi ko mag ci yoon wi ëpp na jege na ñaar ko wala mu jege ko wala fukk ak juróom kon lépp pëste fa mu ko mayoon kon nag ku am kilifa gu mel noonu bi nga xamee ne doomu Serigne Touba bàyyi ko nañ fi itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi njëkk a wóotu Serigne Touba ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaay ba mu def ci moom. ku ne xam na cër bi ko yoonu murid jox gëm gi ñu ko gëm fonk gi ñu ko fonk waaye mu jël lépp nëbbu ko laxasaayoo fi mu toll ci at fi mu ci cër fi mu toll ci daraja dem ci kenn wu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara loolu ñun ñii sax àgguguñ ci mën koo def kon royukaay bu rëy la boo xam ne la lépp def na ko yëkkati juróom-ñaar fukki million ak ñaar ne ko dunduk Serigne Bachir moom la jël tàmbalee ko sama addi sama digg yow. wëlbatiku nag ànd ak moom àndeen woo xam ne lu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wax rek amu ci xalaat kon noonu la àndee ki kilifam diggam ak Cheikh Sidi Moukhtar fekk na ci gubét ba tàyyi Cheikh Sidi Moukhtar seereel ko ne Cheikh Mouhamadou Mountakha de moom laay def sama Serigne Touba ci kaw suuf te teewut lépp mu la topp ci ginnaaw amutu bëgg amutu bañ amutu xalaat toog fii ci Porokhane ñëpp du dégg motul ñaari at mu nekk Serigne Touba mu taxaw ci télévision ñëpp du ko dégg muy ñaana Cheikh Si Moussar dem ba wax ja xóot ba àgg ci wax ne bu nag bu naree dem moom na dem Cheikh Si Moussar def fi loolu kenn mënu ko weesu kon Cheikh Mouhamadou Mountakha lim am mayeesu ko ko sarexeesu ko ko da jënd. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee woon na ne loom jënd kenn tëndeetu ko kenn tëndeetu ko ca kenn tëndeetu ko ca kala ko jaayoon sax moo du ko xaj kon moom li mu am ci yoon wi da ko jënd moo tax nag ñun ñi topp ci ginnaawam war nañu xam bu baax ni ñi àndeek moom am na kilifa gu baax ci sëriñ Sëriñ yi gën a màgg te tegu ci yoon lool wax na ma ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha nekkee Serigne Touba dafa maa wax ne ma moom de mbiram ni ma koy mën a xalaate mooy wa yawma aslama jibrilul amini ata bi isliman huwa fawqal kulli qaharu mualliman anna islaam alfata umarin bushra li ahli sama wa kulli ixtaaru daane ma xilaaf ak Cheikh Mahmoud mu tax ak daal noonu la ko ci suñu bo defar mooy ñëpp maase ci nonk ko loolu nag boo delloo ci maqaamatul yi dafa wax ne kamata diinu tuddaaru li nga lebre rek moom lay lay fay kon sëriñ bi lam daa wax bu may jëm ci sama kilifa kat dama koy bàyyi sama jëmu bàyyi ko jëmam daana ko wax kilifa bi ku ma ci seen rek xamal ne xalaat moom di ko ci ginnaaw nekk na ma moom ci liggéey bi fukki at mu door doon sëriñ Tuubaa mësuma dégg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wala Cheikh Sidi Moukhtar yónni ma ci moom dara lu mbir ma rëy rëy rëy mu ne ma bu ñu defoon nangam mu gën a rafet ba man sax mësuma xam ne suñ bi am nay xalaat te moo ëpp ñëpp ay xalaat kon kilifa ku mel noonu ku ne ci ginnaawam war ngaa góorlu te xam ne kat Serigne Touba lu ko nit jege jege jege jege te amoo coom pasef pasef bu dëgg doo ci jariñoo kon nag dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu tam ànd ak wér te ñépp itam maase ci laxasaayu topp ci ginnaawam te xam ne sëriñ bi lépp xam na ko yàlla defal na ko mu fattaxatan lahumul boobu la ku agsi mu ubbi la ay buntam tëjuwut kenn ku agsi dana la diglu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag da daa wax ne naay xam waaye nag na may saafara bu ci seen yoon ne kon sëriñ bi lépp lu mu war a def ku ne xam na ne xawul azima la sëriñ bi du nës nësal ci wax du ñab ñabal ci jëf lu mu war a wax dana ko wax ba ñëpp dégg ko yaakaar naa li weesu yëpp lu ci ne bu ci waree yëkkati kàddoom lam ci war a wax ñëpp dégg nañ ko moo tax lii xaw fan yii nag ci ay bis gii mooy mbirum jàngoor ji danaa ci dellusiwaat sax ci li ma ci wax waaye ñu bari woo nañ ma daa mujj sax ki yor sama téléphone bi ma ne ko bu moo ko àggeete ndax sëriñ bi la mu ca war a xam xam na ko ca waaye diggal sëriñ bi rek ne ko defal nangam ab taalibe du ko def ndax nit la sëriñ Mbàkke bu sooxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ digg suñ boroom ñu doy loo ko ci kon lu mu ñu war a wax dañ ko war a gëm sëriñ bi nag la mu war a xam xam na ko. na muy saafara nag nañ toxal màggal yeeg nañ indile xew-xew yi lool du suñu cër ma ne duma ko def te ko yaakaar suñ tuwaat tam yi dëgg ceeb itam sëriñ bi bu doxoon ba xam ne lu ñu war a def la du ci diglu kenn ndax xam ngeen ne sëriñ bi amul rek amul lu muy xalaat moom bu waree jël responsabilité da koy jël ñëpp dégg ko kon fommuloo sëriñ bi ak màggal sëriñ bi moo ñu gën a xam suñ bopp moo ñu gën a xam lay xew ëllëg moo ñu ëpp ba siiru ci diggam ak boromam wàllug àdduna gi itam lim ci xam xawuñ ko kon bu xoolee ba xam ne lii la jamono ji laaj ca diggam ak sëriñtuwaa xam na lam ca war a def loolu du ci diglu kenn kon loolu na ci ñëpp génn te bàyyi di wax sëriñ bi na digle ñu foofu màggali sëriñ bi loolu lu bu ngeen war a def loolu moo ko xam du man maa koy digal te ku fi nekkal Serigne am na kilifa gu mu waxoon gu mag ci njabooru Serigne Touba ku baax ne ma lu mu njëkk xalaat te kenn wax ko ko Serigne Touba la jóge kon nag loolu laa amoon ci wet googu lu ma ci wax ngir xam ne alxuraan dafa bayu dara mu wa min huwa lasina yuusuuna nabi wa yaquuluuna huwa uzunun daanañ ko wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonente benn nopp la sëriñ bi moom du benn nopp ñëpp xam nañ ne ñëpp lay diglu bu waree jël responsabilité mooy xam na mu koy defee ndax ay millions la yi def responsabilité bi ci réew yi kenn amu ko kooku ëpp xam-xam ci réew mi yàlla sakku ko ku ko dàq jaam yàlla amut koo ko gën a bëgg Sëriñ Tuubaa amut koo ko gën a dogg ci yoonu Sëriñ Tuubaa amut comme lu mu war a def rek xam na ko kon loolu daa am lu ma ciy def dolliwaat ci rek li alxuraan di wax ne ma minhum man yaquulu man yaquulu izan li izan li wala nii digal ma waaye li nga may digal loolu boobaa ak taalibe néewtul foofa ab taalibe day diglu sëriñ bi ndax bu fekkente ne yaay digal sëriñ bi wala nga jàpp ne sëriñ bi si xalaat la war a wéy loolu njuumte la te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké am na ñu ko ma soo wax leen waxoon ne lii di ak ngeen du di ak xali xilaafatu de am bu mu képp mu ma mën naa ko ne fuutee teg suuf topp ci seen ginnaaw lu ngeen wax ma def ko lu ngeen digle lu ngeen tere ma bàyyi ko bu ngeen ko mënul nag ngeen bàyyi ma jiitu lu ma digle ngeen def ko lu ngeen tere ngeen bàyyi ko sëriñ Saliou Mbacké waxoon na ko ñëpp dégg yaara man am ngeen jiitu ma topp seen ginnaaw wala ma jiitu ngeen topp sama ginnaaw kon nag li mën a nekk mooy moom bi fi nekkal Serigne Touba ñëpp maasa ci di ko diglu te xam ne moom rek la ñu diglu loolu laa amoon ci lu may jiital ci wàllug sëriñ bi bu ñaareel ba it may nuyu ministre Aly Ngouille jaay di ko yóbbantam nuyoo ci président loolu jërul ma di ci soriwaat ndax li ci sëriñ bi wax waxloo ko sëriñ Isaaxa ci cant ak ngërëm ci li nga xam ne def na ko ci dëkk bi ak ci seen diggante loolo dara mënu caa dolli ko waat kon isa qaalat xasaami fa saddiquha fa inna al qawla ma xaalat la ca de saatit cheikh mahamadou basir mbakke mi nga xam ne mooy sëriñ basiru mi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon màgg gi teg ko ci loxoom bu subaa ci ëllëg ba màggal gi jeex dana woowaat mboolem rajo yi ak télévision yi jot mboolem service yëpp kenn ku ci ne li nga xam ne def nga ko ci màggal gi ba màggal gi mel ni ak li nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi te sëriñ Isaaxa junj ko muy loo xam ne ñëpp tëg nañ seen bët kon sëriñ bi nee na mi ngi koy xamal ne ko la mu ko waxoon rek mu ngi koy sant di ko gërëm waxaat na ma léegi ne ma nee ko la ma ko waxoon ne ko dama ko tàbbal ci liggéey bi may liggéey sëriñ Touba na xam ne tey la ko gën a wax kon mi ngi koy ñaanal bu baax a baax la ca des nag mooy fàttali tuuti ci ki nga xam ne mooy borom bis bi soxna jaaratullahi Mariama Buso bala ma ci agsi sax danaa wax tuuti ci wàllu li xew ndax sëriñ bi dafa am lum ma ci ju te sëriñ bi Isaax wax na ko wax la ju xóot joo ne doon na sëkk yaakaar ci ne na ci nit ñi seenum xel dal ngir xam ne moom la ko ca war bi muy santaane ne nañ jàng kaamil yi ci dëkk bi ci réew mi sant ko jullit yëpp boo jàngoor gi dugg ci réew mi kon am na Basiiru te gisoon na ko waaye fam ci ne ci diggam ak Serigne Touba fam ci ne ci wakkiilu diggam ak yàlla loola doy na sëkk suuf ci nit ñi seenum xel war a dal waaye ñu xam ne dafa am lu mu wax mooy lislaam lu ci ne am na lu ci santaane balaa mooy li ñu tuddee am mbas nañ xam ne fu mu amee rek ne ko alxuraan waxee saxara zahal fasadu fi barri wal baxri bima kasaba dayni naas luy cheikhuhum baada lesi amilu laallahum yarjuhum foo ko gis rek na nit ñëpp maase dellu ci seen boroom te kenn ku ne jàpp ne li tax suñu borom wàcce balaa bi yaa ko def tuub jéggulu dellu sa borom te jàpp ne yaa tax suñu boroom wàcce balaa bi ndax wa ma yaalamu junuuda rabbika illa huwa yàlla suñu boon li muy àll ay nit dafa bari ndax balaa dafa am am loo xam ne day nuur balaa te doonu ko ndax fartaqib yawma taati samaawu bi duxaanin mubiin yaxsa naasa haasa asaabun adim rabbana kshif anna al azaaba inna mumin anna lahum zikra wa qad jaahum rasulun mubiin loola nekkul balaa ay malaayika yu wàcc la waaye fu ngeen gisee nag mas di balaa na xam ne suñ bor moo bëgg bëgg a mbugal ay nit ci biir mbugal ñi muy mbugal nag képp koo xam ne yàlla suñ bor def na nga nekk ab jullit bu balaa bu wàccee ci bu fekkee faatu nga ca darajee shahid nga mooy ko dee ca moo tax dinaa ci nett lu gàtt Seydina Umar ibnul Xattaab jugoon na di seeti Saam di fa seet ku ñuy Abu Ubayda boobu fekk na lu may ni am balaa am sidna Omar di bëgg a dem ba càgg mu diisoog saxaaba yi ba xam nu mu war a def ku ci ne jox sa xalaat am ci ku wax ab addis wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ne mbas fu mu am ku mu fekk ci dëkk bu fa jóge bu kenn jóge ci dëkk dem fa bu fa bu fa kenn bu mu fa dale kenn ngi di fa jóge kon loolu lislaam bu ko santaane bi mu waxee loolu Abu Ubayda wax ko ne ko Seydina Omar ne ko day dëpp du dem mu ne ko ndax dangay daw dogalub yàlla mu ne ko damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla kon nañ xam ne wattandiku gi ci daw ci fàggandiku ko dogalub yàlla la bokk kon loolu lislaam ko santaane kon lu mel nii bu xewee ne ñëpp maase ci xam ne ku ci ne la ca war ci wattandiku ak li nga xam ne mestin yi suñ boromee la wàcc ci kaw suuf diggante yonent yàlla Moussa ak ka doon faj ñëpp xam nañ ko jëru dellusiwaat médecins yi suñu borom wàccee ci kaw suuf ngir ñu ngir ñuy lijjanti nit ñi ndax qul law kaana fil ardi malaa'ikatun yamshuuna mutma'inniina lanazzalnaa alayhim mina samaa'i malakan rasuulan bu fi ay malaayka nekkoon kon yonent yi sax suñu borom day wàcce ay malaayka ñu ñëw di wax ak ñoom waaye ndegam ay nit a fi nii rek médecins yi ay nit la ñu doon kon la ñuy diglee santaane ko na ci ñëpp tënku ngir xam ne loolu mooy li war a am. ñu xam ne itam nag ñu xam ne itam nag jamonoy Serigne Touba Serigne Touba na ko ñu bari dégg naa ci làmmiñu Serigne Souhaïbou am na benn commandant de cercle ñëw na fa booba peste bi dafa ba kenn dootu génn tubaab bi ñëw fa ànd ak jabaram ànd ak ab kël boobu ab daw ab dawkat bi mu ndikkee ne Serigne bi kat peste bi dafa mbett kenn mënut a génn waaye bu ma sonal 1918 la bu delloo ci histoire 18 wala 19 bu ngeen xoolee ci archive da ngeen ko fekk gàmm googu sax dañoo mujjoon dañ ko di dañ ko tere woon ba gàmm gi defatuñ ko woon ba peste bi jax ñu door koo tàmbaliwaat loolu kon lu yàgg la sëriñ bi wax ne dañ ko indil café mu dikk sëriñ bi ñaan ci café gi jox ko ne ko naan ci jox ci soxna si jox ci dawkat bi ñoom ñetti ñëpp ñu naan ci tubaab bi nga def ba peste bi jeex ba ba muy dellu France ñëwaat ci siñ bi sant ne ko kenn faatuwu ci ñoom te peste bi àggoon na foo xam ne moo gënoon a tar lii bu ngeen déggee sëriñ bay jaxat di ko wax naan ko waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jeex dem da ci ba ci biir wax ji mu naan ko boo ab sàmm ne cell jur gépp jeex bu jur gépp bu jeexee lu muy sàmm kon ba ñee ñëwee kër bàyyi ko ndey di ñëw wutug mucc a tax mbaa kon li ñu wut wut si kon ba suñ borom dogalee eh, mu war a jeex Serigne Touba ñaan ci mbas ma daal daal tàggoog jëpp kon ni ñëpp dal xaj ci ñaanu Cheikh Modou Mountakha te tënku nag ci li nga xam ne ñi fi yàlla suñ bon wàcce ko suuf muy médecin ñu ngi koy wax lépp loo xam ne xam nañ ne lu mu laaj la ñu war koo def te digal ko nit ñi na nit ñi nit ñi nañ fexe ba tënku ci Serigne baa ngi koy sant ñëpp kon loolu mooy fa ci Serigne bi nekk di jeexale nag ci. ki nga xam ne moo waral bis bi muy soxna jaaratullahi Mariam Bousso ku tedd koo ki nga xam ne kenn mës a dégg ci histoire ci taarix ku suñu borom defal lu mel ni mu ko defal naa ci nett rek ñaare xissa benn bi ci sëriñ son yi laa ko déggee dafa wax ne sëriñ jéere waa daan sugu bi mu fi bàyyi ko bañ di ko taxawu ba sëriñ Tuubaa yónni sëriñ Mbàkke Buso mu taxaw ko ba mu dellusee da ko wax ne ko Mbàkke ndax séen nga sa bàjjan ca sàppe sa sëriñ Mbàkke Buso ne ko Mbàkke de xanaa loolu yaa ko mën a gis mu ne ko ma nga ma nga woon ci biir sàppe sa ndax sëñ jéer dalaa def bu amee doom bu dee góor mu tudd ko sëriñ Tuubaa bu dee jiyee mu tuddee ko soxna jaara te boobu xamu ko sëñ bi ci saaxir loolu soxna jaara faye na ko loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké it nettali na ci màggalu Touba ñëpp dégg ci cérémonie officielle mu wax ne bañ tàbbalee Serigne tubaa ca yeer ma ca Gabon nee na soxna jaara moo agsi ne sëq ci ñaari waggam yëkkati ko ne ko bu kenn mën yàq sa liggéey kon loolu doo dee ci sëkk Cheikh Mouhamadou Bassir nag njabootu Serigne Touba gépp ku ci amee njukkal at moom njëkkee woote ma magal bii rek la ko sëriñ Bassir di wax Cheikh Abdou Khadre nettil na ko ne ko ba mu fekkee Serigne Bassirou ca njaareem boo dëkk bi xam ngeen ni mu demee tumuraanke na metti woon na lool dara néew fi woon Serigne cëri la ko ko mu di cër bi tam nag mu ne ko yaar de jaaxal na ma poroxaan de niis fay nekk ak niis fay ñàkke nekke niis fay nekke ndax na barab ba bindoog la nga xam ne mëni su ko wax ci mbooloo waaye niis fay ñàkk dekkit ngir ku tedd ka fa ne kon Cheikh Mouhamadou Bachir Serigne Touba cërale ko ko mu liggéey Serigne Touba liggéey boo xam ne liggéey bu ñépp xam la moo indi fii dëkk bi tey ba ak njabootam wóotu ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh mu Mountakha yàlla fi yàgg te ànd ak wér yàlla defal ko tawféex it mu taqoog Serigne Touba melu moom la Serigne Touba taqooloon ci ak jabotam mu taqoog Serigne Touba mu waroon fee jóge dem jàngi gànnaar Serigne Touba ne ko toogal fii li ngay wuti gànnaar daan la fekk yàlla def itam mboolem lu mu soxla woon ci xam-xam naari di ñëw ci Serigne Touba di ko jàngal kon lépp fekk si ko fi mu ne mu bind ci Serigne Touba loo xam ne ba nit ko ku bëgg a jariñu ci Serigne faw nga dellu ci ay bidam liggéeyee Serigne Touba ginnaaw bi ci ak njabootam ku ne xam na ne diggam ak Cheikh Mahamadou Moustapha diggam ak Cheikh du fari kenn ku ci ne ànd naa yow liggéeyal la liggéey boo xam ne ci sàmm yoon wi ci ak taalibe nose yoon wi fexe ba ñëpp àndandoo nekk benn képp koo xam ne gis na ne doxewoo noo war a doxe mu dem jëli la waxtaan ak yow delloosi la kon war tudd xëy musliha fii yadi wa fii daari wa sabbitanhu bil haadi doo fi suñu borom defal na ko ko ma jeexale ko nag sëriñ Souhaïbou Mbàkke dafa wax ne damaa fekk sëriñ Basiiru ca tiib ne ko Mbàkke de damaa bëgg nga dénk ma tuuti ci mbirum sëriñ Tuubaa ndax yow yàlla def na nga takkook sëriñ bi xam coom lu bari loo xam ne xamuñ ko sëriñ Basiiru ne ko aw ah, mbirum sëriñ bi dafa yaatoo ndax day géej waaye danaa ci tànn lenn rek lu ma lay nett li ngir nga jariñoo ko mas dox ci biir kër jaaréem yi ndax moom ci biir kër sëñ bi la daa bay dugg ci nekk fekk muy wax ak Cheikh Mahoudou Moustapha ak Cheikh Mahoudou Fadel mu ñaari loxoom yu tedd teg ko ci loxol Cheikh Mahoudou Moustapha ak Cheikh Mahoudou Fadel nee na may dugg si fekk muy jeex na naa leen jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla bu ngeen jéemu jiwut yàlla de lii ngeen fi gis muy nuuru dara def ko ci nunku runku pël muy dem moom sax safuma kon Serigne Touba foofu la nekkoon kon bu ngeen gisee ma ubbee inna diina indallahi li islaam mooy nit balaa doonub taalibe da doonub jullit ba noppi mu taxaw waxtu mu wax ko jullit nag ak lislaam nekkul rek ci lu jub ci sam xel inna diina mabniyun ala naqli la ala naq li mabniun naq li ni ko lislaam wàccee ci rasulullahi sallallahu alayhi loolu mooy lislaam waaye seet la jub ci sam xel nga jàppoon lii mooy lislaam ku ko def itam na nga xam ne boobaa la Serigne Touba waxoon sëriñ Massamba ne ko Massamba mu ne ko Mbakke mu ne ko seetaan de ñëw na ci man ne fu ne jaar naa la fa de mënuma dara waaye des na tuuti jamono ngi ñëw danaa jël lennat ci sama mbooloo ak lennat ci sa sa mbooloo jaxase leen ba kenn leen maa tàggal loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla dimbale defal ñu taw feex defal ñu def dëgg dëgg ñu doon ay jullit def ñu ñuy dëgg dëgg taalibe Serigne Touba yow sëriñtuwaa Touba nongu suñu taalibe yàlla nañu yàlla dimbale xiiruñu ci li Serigne Touba bëgg xiiruñu ci li nga xam ne Serigne Touba bëgg na mu ñu mel ko ñu mel ko te bañ ko wàcc wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. amiin Mbakke. Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg ah Cheikh Madou Bachir ñëpp kontaan na waaye maa ci raw de yow rek laa yaakaar.